travaux yi am ci diwaanu Ndakaaru yenn saay day faral di doon lool lu arrangé askan wi waaye yenn saa itam mu doon ab gàllankoor buñu xoolee lu ci mel ni Cambérène lu ci mel ni diwaanu Liberté 6 extension wala melni sax diwaanu Colobane lu ci bari rek ay travaux ñoo ko wër ba tax sax ñi nga xam ne ñoom ñooy utiliser oto yeeg yu mel ñoom di wax ne jamono ji mbir yi jafe na ci ñoom lool eh, fii ci Liberté 6 extension ci côté Auchan bile ñi nga xam ne rek ñooy yëngu ci dawalum taxi ak yu ni mel ñoom itam jàpp nañ ne jamono ji lu jafe lool ngir ñu mën a déplacé wu eh, ci biir Ndakaaru li ko wër ndax sax weeru koor gi itam doon na loo xam ne moom moo gën a jafe la la nga xam ne rek moo di mbir mi metti na méttiwul ci sama gis-gis bu gàtt metti na ndax eh, muy taximaan di chauffeur particulier ñu ñëpp ñu ko ci jafe-jafe ndax embouteillage bu tar bi te embouteillage bi bu tar bi daan na am avant travaux yi yi ñëw mu gën a yokk yokku embouteillage moom weeru koor moom naka jëkk nii lay mel même bu dul liggéey sax nii lay mel te liggéey bi ah nañ santa bu paree rek dina baax bu paree moom dina baax du ma ne ci taximaan rek du ma yem ci taximaan métti na ci taximaan yi métti na ci chauffeur particulier yi métti na ci ñëpp mais nag ci sama gis-gis ci sama xalaat bu gàtt xëy na travaux yi moo ko moo waral jafe-jafe bi daan na am avant avant travaux yi travaux yi ñëw mu gën a yomb mu gën a yokku mais dama gëm ne buñ ko mu muñee rek dina jeex. waaye am koor moom toujours nii lay mel mais dañoo war a góorgóorlu di mayante nga xam ne Sénégal ñoo bokk ndey bokk baay. no gàllankoor bu métti ci taximaan yi ndax taximaan bu njëkke boo ne woon parcelle taximaan dina sawar a waxtaan ak yow pour dem mais jamono bii di nga arrêté taxi da ne ko banlieue bi laa dem mu ne la doowuma du tax loolu embouteillage bi moom la ñu moytu kon gàllankoor la ci suñuy liggéey. ah benn instant circulation bi xaw na tar quoi parce que yaakaar naa travaux yi moo waral loolu quoi waaw ah, ba pare borom oto yi surtout taximaan bi la may jàmm quoi. ñoom xamuñu kuy cag-cag xamuñu ouvrier waaw ñoom moom duñ la may jàmm si kaw tali bi quoi. ñun ñëpp du yéen ñi kamera du ñun ñi sofoor yi ak euh, ñeneen ñi ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. mais gëm naa ne buñ ko munee mu jeex ndax lii ñuy defar nii indi na gàllankoor mais gëm naa ne saay bu paree rek jafe-jafe na wàññeeku sama gis-gis laa wax de jafe-jafe dina wàññeeku. des fois bu tali bi naree métti nii xam nga ñu dugg si koñ yooyu noonu xam nga mën a fëlee feneen dem suñu yoon. waa noonu lay demee quoi. bu paree kay dina dina dina saafaraw bu paree dina saafaraw parce que bu ñu ubbee fi ñu baare day baax bu paree moom di du mel nii dootul mel nii dina baax. travaux yi moom bu jeexee moom a ah, sant yàlla quoi waaw mais bu travaux yi jeexee moom dem ak dem ak dikk bi dina xaw a dina gën a yomb quoi mais pour l'instant moom moom métti na quoi. waaw surtout surtout ngoon gi nii heure wàcc bi nii parce que nit ñi dañu wàcc ndoo quoi moo tax loolu moo tax muy gën a tar ñoom ñii di ci yëngu jàpp nañ ne li nga xam ne moo di travaux yi le lu jaar yoon la jàpp nañ ne itam bu paree rek dina mën a yombal lu bëri li nga xam ne moom moo jëm ci seenub liggéey naam sax li nga xam ne moom mooy di loolu le dafay soxla yenn saay ay tali yu yees ay tali yu baax itam